bi mënta yéeg nag quoi tirage bi la amul na quoi oto bi amul tirage su la wàcc ñëw retourner quoi ba fii waaw ba fii nii nag yàlla sutural ko mu dóor ko ci affaire yi pour mën a wàcc pour mën ko gaare mais jàmbaar la nag alhamdulilahi rabbil alamin jàmbaar la daal sant nañ yàlla bu baax a baax waaw ndax moom nit moom loo fekk ba nekk

benn garant bi daw cofeel kooku moom mu cofeeloo yaram bee xool si ok keneen ku taxaw si bunt bi loxo bee sumeeku sumeeku ak benn aja tàng bi di nekk garab yii nii garab gee rek xonk gee pax waa ngi foofu moom Mm.